gannaaw ba nguurug Sénégal yëkkatee lu toll ci fukki milliards ak juróom ngir suqali li du tourisme fii ci Sénégal loolee acteur yi yëngatu ci wàllum tourisme fii ci village artisanal bu Saly di ko rafetlu bu baax a baax. état bi damay jaarale si seen euh, média bi di remercier état bi commencé ko si njiitu réew mi mooy président de la république waa ci ministre du tourisme euh, monsieur Alioune Sarr. ba si euh, madame Camara di Néné Daaf bi nga xam ne moo nekk fii yori tourisme euh, secteur Mbour ak bu Thiès ak bu Diourbel ndax vraiment village artisanal bu sali ma yeboon ne 100 cent lañ am vraiment mboolem koo xam ne mi ngi fi di liggéey rek état bi dimbali na la jox na la 500000 waaw si jamono yi may wax ak yéen nii. loolu moom sawar naa wax ci lool lool lool lool sax. gis nga ñii léegi nii nii ñu ngi ak seen i papier jógee ko ci inspectrice du tourisme. demoon jëli seen notification par contre majorité bi sax ñoom jot nañ seen xaalis ba pare euh, quelque quinze quinzaine de personnes ñoo ci desoon te ñoom ñëpp jot nañ seen notification fi ñu toll nii moom alhamdulilah état Sénégal moom dimbale nañu bu baax a baax a baax ba cinq cent mille par personne. ñu di ko fay pour une durée de huit ans deux ans yoo xamante ne ni c'est gratuit doo ko fay donc loolu ce kii veut dire que mën nañu wax ne may la sax a ah. huit ans nga toog di ko fay. toog ñaari at yoo xamante nii franchement fayloo ko loolu moom amul lu gën a neex loolu <laughs> kontaan naa ci su may frère kontaan nañ ci parce que tamit lii mooy su may boo réew nii la war a demee boo demee gis say doomu réew nekk ci situation danga nga war a dem vers eux laaj leen seen soxla lan la ba pare ngeen dimbale leen accompagner leen franchement lii état bi def moom c'est une première pour nous mais nag yàlla na continuer pour ñëpp. bon am na ñu jot mais am na ñoo xam ne seen notification génn na mais jotaguñu. waaw xaalis bi xam nga toog na ay 9 mois liggéey yooyu ñu jox la benn 500000 moom da ngay ree ba tas buñ sañoon mu mu ëpp loolu quoi mais sant yàlla rek yàlla baax na. ndam sax am na ñu jotul ci yooyee koppar Sénégal fàttewu benn yoon. am na ñu si jot nag. waaw bon man moom fekkuma fi woon parce que dama demoon Dakar te man seconde dañu woon bi takk seconde du ñu jot. waaw mais après dañoo a affaire bi après ñooy boole Sogo yi si biir mais man bu fekk ma fii Dakar la ma fekk ba ma ñëwee wax naa leen ko ñu ne ma moof jarul wax parce que liste bi dem na ba pare waaw mais ba tey su ma sañoon tamit ñu jot si ñu ñu jot ñu neexal bi parce que yàgg na trop toogaay bi yàgg na bi laay te nga war te njaboot lañ waaw moom laay wax nag ñi koy comme man rek maa jotul tamit am na collègue yoo xamante ne jotuñu tamit mais taxul ñuy mer quoi parce que mënuñu satisfaire ñëpp waaw ñi ñu war am am nañ ñu war am tamit mooy suñu sañoon nag ñëpp am waaw no ñëw wax dëgg yàlla binduñu waaw man dama fekk liste bi jàll ba pare ma ñëw pour gars yi defal ma si ñu ne ma xaar ba kii bi jeex ba pare quoi après ñeneen ñi après ma ñëw. ndam sax nguurug Sénégal génn na ay koppar ngir jàppale leen ñoom acteur yëngatu ci wàllum tourisme. waaye nag terewul benn yoon seenub liggéey daal di taxaw. boo seetloo fii ci village artisanal bu Saly benn touriste duggatu fii non suñu liggéey avant Covid bi ak actuellement moom wax dëgg fa am na différence ba nganda nganda nganda sax Covid moom bi mu ñëwee wax dëgg fa yàlla dafa impacté lu bëri bëri bëri ci milieu touristique bi franchement doxul période bi ñu toll nii. client sénégalais yi moom xam nga ne ñoom soxlawuñu li ñuy jaay client sénégalais yi moom wax dëgg fa yàlla jàpp ni ñoom sax ñoom ay client lañ pour ñoom instant bi de tar tar moom ba fu tar yem moom fa la nekk waaw que doon liggéey di gis ay client toog ba instant bii nii gisatoo ay client presque neuf mois. metti na lool waaw Covid moo ko waral parce que aéroport yu ñu tëj la loolu moo lu ko gën a lu ñu gën a sonal ci la bokk. waaw bu baax yàq na ci moom ndax fi ne nii heure bi dañ daan fekk ñu jóg di xaar client yi dèjà yaa ngi ma fekk ma tëdd nelaw laal na nu moom. waaw euh, feebar bi moom euh, neexul ba neexul mais ñun la gën a laal euh, secteur tourisme la gën a laal parce que boo xoolee village bi actuellement nii vraiment doo fa gis benn client buy taxawaal amuñ benn client. mais ñe li olof njaay di wax ñàkk pexe pexe la moo tax ñu xëy ñëw toog fii ko mais vraiment dara amu fi ko moom ñun la gën a impacté quoi